Anyways.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 gaynde wax ab visil la li mu mbubboo nag ba def tooxi doona gi tubaab mu ngi koy woowee usurpation de fonction wolof naan ko mbubboo méccem jàmbur yëf yi nag nee ñu nii la demee agent de sécurité boobu di Condé moom ak beneen agent de sécurité bu mu àndaloon dañoo fekk ci guddi ab couple di sëy maanaam nekkal ko ca cay waay xanaa lii malay sax defatuñ naka noonu ci la Condé ak beneen agent de sécurité bi mu àndal àndaloon daal di présenté wu ci kanamu couple boobu doon sëy ci mbedd mi ne leen ay policier lañu ci noonu la couple bi daal di paniqué jéggalu ba sukk ci kanamu ñaari agent de sécurité yooyu ne leen nañu leen suturaal waay waay noon ngeen dem ji auberge sax nag gannaaw ba ñu sukkee jéggalu leen nag ci la Condé ak beneen vigile bi mu àndaloon daa di yërëm couple bi waaye nag yemuñu fa ndax ganaaw bañu leen xabalee ba noppi dañoo jël numéro téléphone ndaw si ci suuf waaye noo leen di dooyee numéro téléphone bi nag xanaa bi ñu jëlee numéro téléphone ndaw si nee ñu kon de saa su nekk daf doon woo xale bu jigéen bi di ko santage nan ko policier la soo deful li ma wax dinaa la arrêté waaye kii saay-saay waay naka noonu nag ci la mujj soppee xale bu jigéen bi def ko ab objet sexuel maanaam def ko faw kaayam saa bu woo ndaw si taw te nee ñu saa yamul foofu ndax da doon santage xale bu jigéen jigéen bi di ko laaj xaalis réew bu jigéen bi nag bi mu demee ba damm sonn tàyyi ci agent de sécurité boobu doon ko chantage di ko tëddee ka laaj xaalis ci la demee ca brigade poste police bu ci kàmbaaw <clears throat> ma ne kuy bëgg a dee wequ laa naka noonu ci la woy takk der yi tegee pièce Condé daal di ko ne niip <clears throat> waaw góore waay Condé nag gannaaw bi nga ko arrêté moom it ci la dénoncé beneen agent de sécurité bi te muy wuyoo ci turu est-ce que ñoo ñaar nag ñoo bokkoon dil bi BVS di beneen agent de sécurité bi di complice su Condé moom nag jàpp nañ ko ba defere ko parquet daa di koy placer sous mandat de dépôt di ko toppee ci wàllum usurpation de fonction maanaam bu boo métier jàmbur ma ne ko bari na ci dëkk bi nag ak li ñu naan extorsion de fonds maanaam wammi koomu jàmbur bu dee Condé nag moom gannaaw ba ñu tegee ci kawam daani ñu teg ci BVS di complice am boobu yëpp yokku nañ ci viol ak menace chantage sexuel ëppatalaw gu nga ni ruba moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca place bu Mermoz doy na waar ab waay daal moo fa àndaloon ak corom di doxantu ci place bi ab waay ñëw présenté wu ci seen kanam comme benn policier buy def contrôle naka noonu ci la faux policier boobu ak beneen def ko ti ñaawteef bi mu àndaloon doon jéem a agressé waa ji ak corom coro waa ji ñu doon agressé nag mu ngi yoroon benn portable iPhone mujj opposé yi ngir ñu bañ a yóbbu iPhone am ci la copain bi raagee ak gaay yi ñu ci loxo ay waay ndaw si munoon nga bàyyi nu yóbbu portable bi rek ma ne agresseur yi dañoo mujj fokkati portable ndaw si dem ak moom laa wax waaye nag mujj ñoo rëcc dee ndax agresseur bi di ML doon mbubboo policier di agressé loxo ci poste la ko élément commissariat bu point e teg loxo ndax dañ doon def patrouille ba dal di koy gis ci benn oto buñ doon contrôle loolee sa nag bi mu xamee ne gars yi démasqué nañ ko aw lay la mujj teg ne maçon la cey mim réew ba yàgg bi mu demee ba xam ne gars yi démasqué nañ ko foox la def gars yi topp ko ba jàpp ko yóbbu ko ca police bu point e ma ne leen waaw góore waay ndekete yoo foo policier agresseur boobu doon lëmbe place bu Mermoz ak complice am bi yàgg nañ fa agressé ndax ci kanamu enquêteur yi ñu bari ak couple bi ñu agressé nee ñu ML ak complice am boobu agressé nañ leen ca place bu Mermoz te bu ñuy ñëw di la agressé dañuy ñëw présenté wu comme ay policier ma réew mi lu ne xew ba tax ML placé nañ ko sous mandat de dépôt complice bi nag gaayam koy wër ma ne ko dinañ ko teg loxo de moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Sacré Cœur doy na war ab médecin dentiste daal moo fa faat ñetti doomam ba noppi xaru ay way ji nag li tax mu def jëf ju ñaaw ju ni mel abandon conjugal wolof di ko wax gedd néegu sëy <laughs> bari na ci réew mi nag góor ñu bari di ko dund nee ñu jabar ji daal moo ko doon ñaan baat te yoon mujj na atte ba jabar ji dal di koy gañe ci procès gardu xale jabar ji yor ko waa ñetti doomam ba noppi xaru nee na jabar ji mësu ko bëgg te sëy bu mbëggeel amul ay doom waruñu cee juddu ay way ba tax mu jàpp ñetti doomam xoj leen ba ñu ñàkk seeni bakkan ba noppi daa di faat boppam ma réew mi feebar nag réew mi feebar bi ci nekk kenn mënu koo wax saa su nekk ma wax réew mi jàngoro ji dal réew mi moo gën a garaaw korona baax na rek waaye tamit jigéen ñi war nañoo xoolaat seeni nekkin ci biir néegu sëy góor ñi lu ñu dund métti na trop waaye nag ak lu mu métti métti métti métti warul yegg ci nga faat say doom ba noppi xaru mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz